jaajëfal leen ci bàyyi xel geeg politique yi waxtu jëbaleen xibaar yi jot na sënk mbokk yi asalaamaaleykum li gën a fës ci bopp xibaax yi bokk na ci ay at a ngi ñuy topp seen jafe-jafe yi ñu bëgg ñu saafara ko ji kuréel gi njaboote ñuy liggéey ci collectivité eh, territoriale di ko goxaat yi mujjoon a amalu bëggoon amalu amalub sitting ca buntu mankaanu jëriñ ji leen gàlloo waaye dañ ko mujjee eh, dakkal la ñuy nag dëgmal mooy ab marche nationale daañu teewlu ci biir jotaay xibaar yi ak Ndiaga Diop mi yore seen cadre du secrétaire général bu intersyndical boobee dañ ko Amadou Mansour Diassé dañu wax uh, ci diwanu Mbour lañ doon amal ndaje bu yaatu di forum civil uh, xemem tefuk ndaje ga nak moy fassiyene kon ñaaxat bu baaxa baax mbolem ñi saytu ak xol lecc li di processus électoral bi jogante ñuy deggmal ngir ak lepp jaar yoon dara bañ caa gàll góose ngir transparence di leeraange daañ ci ñëw ak suñu ndaw bañu togal ci Mbour di Assou ak Ousmane Bitey dañu àddu jëmele ci walum time politique goge jàppale ne Mamadou Ndione mom nee na kaccat ko ci walum liste électorale ya, bëgg nañu di yiw turam ca liste coalition boobee ko investir moom nag génn na biir APR jël nay débat débat kii dëbësam ne mott ablay danañ ci ñëw ak lu ko waral dañu àddu ci xibaar yi ak leneen loo xamante ni jëm na kon euh, ci euh, ginnaaw wax naa ko sànq di Mamadou Ndione moomee soxal na tamit coow ci wàllum système woyofal jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi euh, lëmbee askan bu Sénégal ci wàllum xonq googee muy def maanaam làmp ba daal ba ngay dugal ak ba muy rouge benn lay doon lu ko waral askan bu Sénégal nag indi nañ ci seen njàqare ak seen tiitaange dañ ci teewlu yeneen ci ponk bokk na ci yëglekaay Abdoulaye Dieye moo koy xëy nafar ci kanam ñu faram fàcce courant ahlan wa sahlan marhaban bikum nuaykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fas yéene yàttale xibaar yi ci kàlla may Kocc Barma ni ñu ko waxee léegi ci njëlbeen yi ubbiteef gi mooy nag lu jëm ci collectivité territoriale maanaam ak li ñuy di gox goxaat yeeg ñoo leem kuréel ga leen njaboot ci wàllu yu ni mel di ay liggéeykat di intersyndical bi ñoom ñooñu nag ñoo gën di wër wane seen mer ga futtu jëmale ko ci jëwriñ ji leen gàlloo ak lenn ci ñàkku ko indi ak tontu ci seen mbir yi bëggoon nañ sax amu toogaanu ñaxtu ca buntu mankaanu ministère bi ñu dénk wàllum urbanisme collectivité territoriale ak aménagement des territoires ginnaaw bi nga xamee nag mujj nañ ko toxal ñoom intersyndical boobee nag daal ñoom euh, terewul seen grève boobee ñu amal ci euh, ñaar fu téeméer ak fukki waxtu euh, tey jii lañ ko gën a dëggal tey ab doxub marche nationale boo xamante ni fan yi ñu dëggmal daañ ci daañ ko amal ñoom ñu ne nag kenn yore na seen kàddu Ndiaga Diop secrétaire général bu l'intersyndical bi ay kàddoom dañ koy ànd teewlu ko ci bu mu jokko gi ak Mouhamadou Mansour Diassé Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout de suite dans mon discours, est un grand jour parce qu'en fait, ça, c'est coïncide avec le lancement effectif des travaux du port multifonction de Ndayane. ni mu ko daal ci sama discours té bëss bu am solo la ndax bëss la bi nga ne ci ñuy lancer officiellement li nga xamante modi moo port bu woor bi nag daal nañ ko door ci atum 2023 ak léegi. waa non xam nga ñun de euh, euh, tardivement tardivement maanaam tey ci suba la ñu ñi nga xam ne ñoo chargé woon euh, autorisation sitting bi ci kanam ministère bi si la ñuy wax ne commissaire bi woo ne leen ne leen sitting bi voilà doo leen ko mën organiser foofu ci ci kanamu ministère bi waaye da ngeen da ngeen koy organiser fële ci ci ci ci rond point Liberté 5. loolu nak ñu japp né ah ñun euh euh, euh bëggewuñu ñuko nonu parce que dañu bëggoon hein, jàkkaarloog suñu ministre xam nga comme mom bo ba légui ñu ngi mu ngi lekk lettu dégguma bëgguñu bëgguñu recevoir ñun ñu def sitting n'est-ce pas pour se faire entendre devant les grilles du ministère hein, voilà pour que au moins ñu xamné am nañu luñu luñu luñu naxari waye ñu naqari euh, euh préfet bi dafa japp né fofu mënuñu ko fa organiser rek ñu né loolu nak soxlawul ñuy organiser ñu renvoyer ko ba. Euh, jëmmi jamono waaye à la place dañ ne dañuy organiser benn marché nationale boo xam ne nii euh, euh, ci semaine bi lay xam naa dañu leen communiquer date nga xam ne ñëpp nañ ñëw fii Dakar pour ñu def marché nationale pour manifester li nga xam ne moo ñu moo ñu naqari ma ngoo kon di woon kii di Ndiaga Diop doon àddu ci micro kii di Mansour Diassé jëmee ci grève collectivité euh, territoriale boobee nga xamante ni euh, ba tey pënd ba wureegul ñoom ñooñu di liggéey ci kon euh, gox goxaat yi tey ji la ñu gën a fësal seen bool njàmbat bokk na ci xibaar yi lu ñu leen di jàllaleel mooy jëm nag liggéey port multifonctionnel ca ndaayaan mu mel ne kon daal ñu ngi ci yeesalaat li di waaxeeg dalluwaay ak yenn ci gaaleeg bato yi bokk na ci kon ginnaaw bi nga xam daal ci dig defoon 2023 le siiwal nañ liggéey port boo xam ne dana gën a yaatu ca ndaay am boo xam ne door nañ ko ni ki àllarba ji nag fan dañ ci ànd teeru ci ñu Diallo ci micro euh, Amsatou Gano. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout de suite dans mon discours, est un grand jour parce qu'en fait, ça, c'est coïncide avec le lancement effectif des travaux du port multifonction de Ndayane. ni mu ko daal di xamle ci sama discours tey bés bu am solo la ndax bés la bi nga xamante ne nii ci la ñuy daal di lancer officiellement li nga xamante ni moo di tabaxu port bu Ndayane port bi nag daal nañ ko door ci vingt trois ak léegi mu di nag lu rëy ci li nga xamante ni moo di Sénégal rawatina ci domaine maritime bi ndax nag xam nañ ni port bi daanaka sakla ci Sénégal waaye tamit fii concurrence bi daal di toll. bi de port daal dina indi li nga xamante ne mooy taxawaayam bu baax a baax ci Sénégal jëm ci concurrence bi nga xamante ne ñu ngi koy am ci domaine maritime bi. poor bi nag mbégteeg ñëpp lay doon daanaka dina tax rek ba Sénégal am vitrine maanaam daal am xarkanam bu yees waaye tamit ci domaine maritime bi. mu mën a cee am taxawaay bu am solo ci sous région bi waaye tamit mën a fexe rek comme ni ma ko daal di xamle mu daal di mën a concurrencer ak yeneen port yu mag yi nga xamante ne ñu ngi fi nekk ñu am yaakaar rek ni liñ ciy séntu daal dinañ ko daal di am ci bile port waaye tamit bu noppee mu doon daal taxawaay woo xamante ne daal gis-gis la bu Sénégal yëpp di ànd di booloo doon benn daal di xam ne daal ni bile port daal njëriñ la ci Sénégal waaye tamit njëriñ la ci ëllëgu Sénégal ak sénégalais yëpp. donc euh, les autorités de ce pays de faire du maritime. Satou gànn moo doon taataan ay kàddoom dañuy dess ci xibaar ak leneen soxna lu jëm ci walum politique ak euh, ndaje mi nga xamanteni wa Civil ñi am ci njiit la di. Birahim Seck ak ñi mu bokkal kuréel googee xaymeetef ga mooy gën a ñaax mboolem ñi nga xam ne si ñoo ngi yëngu ci wàllum saytu élection yi ci 46 départements yi di observateur ngir nag processus électoral bi dara bañ ca àggal lu góosee lépp mën a jaax ci transparence ci yoon bokk na ci kon ab euh, kuréel goo xam daañ ko samp fas yéene ko euh, jëmmal kon ci législative yi ba lépp daal dara du ci am ak weranteek giitangance dañ ci teewlu ay kàddu moom Birahim Seck euh, Assou Sow ak Ousmane Bité ca Mbour ñoo ko taataan Je dajale ñi euh, représentant du département au Sénégal les 40 départements mais également yenen acteurs pour nous faire une ci li ñu observation euh, électorale à long terme Madame, nous nañu sayto élection yi ci bu mën élection législative ak élection bu mën législative anticipée yi moo ñu tax nous mo tax ñu pour ñu xam exactement la moins plus électorale, la observation ak yon ban code de conduite am bien sûr am nañ euh, pour def observation yi. waaw analyser processus euh, contestation yi nga gis opposition de contester sur le droit ci ne date bi élection ko fixé amul 21 euh, septembre wane également.

Euh, des candidats devant la matière électorale. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi dañuy des ca Mbour ba tey ci wàllum politique moom la Ndior moom euh, nekk maire bu Diass euh, siiwal na ak tekki ndombal tànkam ci kuréelu APR di alliance pour la république ñaawlu tamit nañ ko boole ca ñetteelu toogu ca suppléant bu liste départementale bu coalition jàmm ak njariñ moom Mamadou Ndior nag nee na nañ gaaw diniw turam ndax santaanewu ko tey santaanewu ko ëllëg jamono ji bëggul gis turam kon ci boobu lépp list ay kàddoom dañ koy teewlu ci diwaanu Mbour ak asso Ousmane Biteye avant-hier xaw ma hier ñu dégg ne def nañu ci list boo xamante ne position ba ñu def tàgguwuñu ñu ci dañu def benn position de suppléant ci benn liste ba ma gisee loolu li ma njëkk def dama woo mandataire liste ba ma ne ko dindil sama tur ci loolu ngeen def ndax amu leen wor ma woo ma laaj ma ndax bëgg naa positionnement boobu benn ka jiite liste ba muy personne morale ba moom itam ma woo ko wax ko la même chose yàlla xam na ne ba ma leen ko waxee léegi nag nelawuñ nelawuñu de waaw ndax xam nañ ma xam nañ moom la ñu bu xësee ba dogu ci dara dogu na ci. position bi may jël ci élection yi nga xamante ne élection yu jaxasoo la liste yi bëri na c'est une position de neutralité absolue mooy Mamadou Ndione du campagnal kenn du wax kenn woteelal diw du dugg ci langue bi. Mamadou Dione dina toog pour comme te Mamadou Dione citoyen la bu bés ba jotee dina waaxu dem def li ko yoon ñaan mu dem voté ji ki mu yaakaar ne war na ko voté moom ak yàlla rek xam.

bon taxaw ci APR aussi depuis APR bu ñu créé ba tey ji kooku su su su su su ji dafay dafay gis boppam dafa mel ni dañ ko dañ ko xeex wala mm-hmm. dañu dañu néewal en tout cas doole dañu néewal militant wu bon Thierno Youm aussi nekk ancien président du groupe parlementaire Euh, nekk ancien ministre bon nekk militant aussi taxaw ci gannaaw euh, Macky Sall fukiat ak ñaar kooku mm. aussi ba gisul bopam ci doxalin euh, législative men maintenant nak nag na jur quand même vote sanction mm. ñoo ñu quand même lu ñu mënte wax mm. ay responsable lañu yag nañ ci géopolitique bon léegi pour Pastef nak lolu aussi bon jafé jafé la Pastef ci coalition le nekk bon am militant yu bari am nañu place bu baax militant mais am allié aussi ñi nga xam ne dañ leen dugal allié yi nag non ñoo ay militant Pastef ñu ñu nekk mhm. aussi ñu xam ne kontaanuñ. Mm-hmm. loolu moom ci euh, doxalin euh, doxalin tas. mbir ngi bu ci état gaaw juk indi ci leeral musiba mën nañ ci am ndax askan bi jaaxal na leen lool ci lii di waañ mu fol bi mujjee nekk diisal compteur bi yenn saa lamp bay xonq tiital nañ seen i borom xëy na jàppees nañ na am nag yeesal gu am dépp système bu ñu soppeer nii loolu it am na lees yi war a mën a leeral waaye balaa loolee sénégalais ñoom am nañ ci ndaqaru xol béjji nañ ko dañ ci ànd teewlu ci Mame Awa lii di kontóoru woyofal yi nag moom jamono ji tëj na ràpp boppu sénégalais yi ci noonee sax ñoom jàpp nañ ni lii nga xamante ni sii mooy jëndum crédit woyofal dal di nay bokk ci dépense quotidienne bi le waaw loolu moom métti na parce que ñun xamu courant la ñuy liggéey ndax léegi kenn yoratul machine pédale wala yooyu courant la ñuy liggéey te courant bi dafa cher fi mu nekk nii cher na trop parce que xam liggéey léegi moom il faut nga boole ci ay feeru courant yooyu te courant bi woyofal bi surtout dafa cher ci ñun trop trop trop donc euh, day yàq lu bëri ci liggéey bi donc loolu day métti ci yow day maanaam li ngay gàññe dootul dootul dootul bëri daal. bu ñu sukkandikoo nag ci jaaykat bi moom jàpp na ni lii di woyofal nag moom tuddatul benn yoon woyofal. waaye diisal lañ koy dal di tuddee ndaxte jamono ji metti na loolee ci seen côté. ndax boo tuddee woyofal moom jeex na tàkk dafa war a woyof. waaw mais bu fekkante ne woyofal daa dem ba diis moom doonatut woyofal te fii mu toll moom passé na diis moom. waaw luur la wax kay instant yii moom. Euh, booba 5000 laa daan dugal euh, gën saa bëri mais léegi dem na dem naa plus 15000. moom moomee sax moo ñëwaat ngir soññaat ñi nga xamante ni si ñooy nguur gi. ngir ñu mën a indi ay saafara ci bile situation. waaw ñu xool loolu waru état lay doon ak ñoom ñi ko gérer rek ñu xool nu ñuy dimbalee doomu aadama yi rek parce que affaire yi courant bi seer dund bi seer lépp seer moom bu yàggee moom du baax waaw noonu da laa ko gisee ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko maîtriser ñu xool nu ñu koy defee. lii di jëndum crédit woyofal nag moom dal dinay nekk lu tëj ràpp bopp askan wi le ci noonee sax ñu ci bëri moom jàpp ni bile situation day daal di yokku saa suñu yeewoo ci noonee sax ñu ngi woo ñi nga xamante ni si ñooy nguur gi ngir ñu daal ci indi ay saafara ci bile situation. ñu wax ci Inde ak li ñuy wax industriel indien Ratan Tata ñoom nag fi mu ne nii jàpp nañu ne faatu na euh, ci 86 euh, ans la am moom moomee di jëmu joojee kon nga xamante ni euh, maanaam ci àll ba ji dañu jot xibaar bi nga xam nag am na société yu tudd turam ñuy wax lu ci mel ne Tata yeneen aju yu ci aju en tout cas turam moom law na ci àdduna woon nga këpp ci taxawaayam ci téeméer yi daanaka yi dëkk yoo xamante lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukki milliards ci dollars maanaam ñu xayma ko ci 150 milliards ci euro tamit ci chiffre d'affaires kon euh, këru liggéeykaay yooyu da koy am kon moom moom mi daal nay euh, dëdd wujju euh, sunu borom xibaar yi dal ak jàmm